salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñu fas yéene nag kon ci cours bi leeral li nga xamante ni moom mooy bordure yi ci CSS kon ci chapitre 34 bi euh, muy wax ci bordure yi ci CSS dinañ fas yéene wane maanaam nan ngay defee bordure ak lan mooy bordure beneen bi ci topp mooy dana leen wan itam maanaam naka ngay jëfandikoo ay propriété Euh, ci maanaam booy joxe ay bordure propriété relative euh, donc yoo xamante ni yépp ci bordure bi lay jëm dana leen jàngal aussi euh, wan leen maanaam wuute gi am ci style yi maanaam style de bordure yi dañ leen wan maanaam naka ngay créer ay bordure yu wuute ci côté élément bu nekk waaye dinañ leen wan naka ngay def ba mën a defar ay bordure yoo xam ne coins yi dafay nekk ay coins arrondi kon loolu mooy li ñu indi tey ci cours bi maanaam ngir kon ñu tàmbali daanaka suñu page dara du ci soppiku donc lii mooy li ñu amoon donc dañuy daal di ñëw kon euh, fii euh, li ñu dindi lañ jotoon a def ci p ak lañ defoon ci div yëpp tàmbaliwaat kon maanaam à zéro bu ko defee mën leen a expliquer voilà donc lii mooy li jotoon na euh, li jotoon na am donc léegi ci euh, diif bi ci diif bi dafa sax ñu ñu delloo ñu delloo euh, li fi nekkoon donc ci ci diif bi par exemple donc bordure bi ñu daal di euh, bordure bi ñu def border ñu def cinq pixels loolu mooy épaisseur bi cinq px voilà donc loolu mooy bordure donc cinq pixels donc su ma actualiser gis ne donc ci sama ci sama div am naa cinq pixels de bordure léegi ma def solide solide mooy style bi couleur ma def black ndax mu gën a feeñ voilà donc saa yu amee bordure lii mooy épaisseur bi lii mooy style bi lii mooy euh, li ñu woowee donc couleur bi kon ñetti euh, ak kii yooyu lay am valeur donc su ma actualiser gis nga kon sama div am na donc épaisseur am na couleur léegi nag euh, bu dee kon sama paragraphe bi ci biir xaaral moom aussi ñu appliquer ko ñetti façon bordure par exemple mu ngi def border tiret largeur 8 h donc li mooy largeur bordure bi ma jox ko 2 pixels ma joxaat ko style bi mooy border tiré style border style ma jox solide beneen bi mooy couleur bi border tiré color ma jox ko yellow jaune par exemple là jaune donc xaar ñu changer couleur bi def ko bleu déjà mooy couleur fond bi donc bordure ñu def ko jaune parce que jaune bi ñu bañ a nuroog bii orange bi donc gis nga ne kon mi ngi nii léegi nag bu dee côté bordure yi déjà am na façon yu bari par exemple solide benn la ci su la neexoon parce que solide moom mooy bordure normale yi donc am na yeneen set par exemple bu la nga def dot dot nii voilà donc boobu normalement ay pointé lay indi gis nga ay trait lay def donc am na beneen aussi bu ñu wax dash am na beneen bu ñuy wax dash bi aussi beneen la enregistré xool bi moo lay jox kon ki donc mooy ay tiré donc am na boo xam ne dabal dabal la double enregistré donc gis nga bii mooy double donc double kii la lay jox am na boo xam ne grove la grove groove voilà donc groove bee nekk noonu am na boo xam ne rich la reach am na reach voilà donc am na insert insert voilà am na outset aussi outset voilà outset donc yooyu yëpp ay style la donc muy huit style yoo xam ne benn bu ci nekk mën nga ko utiliser voilà donc yooyu mooy déjà lu jëm ci wàllu style yi donc euh, leneen li ci topp ba tey ci wàllu euh, div bi ci wàllu div bi par exemple fii mënoon nañu définir bordure bâton par exemple ma ñëw def ci div bi ma def border eh, tiré bottom mooy border bi ci nga def vingt donc mën nga définir border ci suuf ci kaw gauche wala droite donc vingt pixel donc vingt pixel voilà bu dee euh, style bi ma def rich de style ma def euh, rich bu dee couleur ma def black par exemple uh, enregistré donc bordure bi ci suuf normalement gis nga moo nekk nii donc bordure bi ci suuf la ñu def donc moom nga def aussi même chose pour euh, droite donc xaa ñu changer couleur sax ngir mu gën a leer par exemple ñu defoon ko yellow voilà yellow gis nga gis border baa ngi noonu ci suuf donc mën nañ def aussi à droite donc bottom ngay remplacer par right donc ngay remplacer par right enregistrer actualiser voilà mu jël nii donc soo neexoon nga jël left mooy côté gauche top mooy côté mooy ci kaw donc même chose pour euh, euh, paragraphe bi mën nañ par exemple border top border top border top deux points maintenant ñu choisir couleur border top color mooy bordure bi ci kaw couleur am donc border top color donc xaaral au lieu ñu koy bi nga ñu ñëw border color bi ñu def border top color voilà enregistré dem xool voilà mooy bii ci kaw ñu changé at euh, outset bi sax ñu def ko beneen ndax mu gën a leer par exemple ñu def ko solide solid ndax mu gën a leer donc nga gis ni prototype color baa ngi nii donc ci kaw la ko def donc mën nañ changer aussi euh, largeur bi donc au lieu de border width ñu def border border top width donc largeur bi voilà border top width actualiser voilà gis nga changé na largeur bi léegi euh, border top style même chose de border style ñu def border top style donc ñu def ko dash nga actualiser voilà donc mi ngi nii donc pour wan la ni la noonu nga amee border top na nga mën nga amee border bottom border left ak border right donc yooyu mooy euh, yi ñu leen indil donc ñu wan leen léegi nan def ba def ay coins arrondis par exemple xaaral ñu jël suñu suñu euh, euh, suñu div bi donc ba background color bi ñu jël même couleur bi largeur ñu jël cinq cent pixels hauteur trois cent pixels donc yeneen yi ñu dindi leen donc ñu def ci donc coin arrondi donc je mets border radius loolu noonu lañu defee bordure border radius wala par exemple quinze pixels voilà border radius quinze pixels donc su ma actualiser gis nga ñu mu defee ay coin arrondi voilà donc quatre coin yëpp nekk na ay coin yu arrondi donc border radius boobu moom moo la kay moo la koy may donc bu dee xaar ñu dem ci suñ beneen euh, élément bi par exemple paragraphe bi ñu conserver hauteur bi conserver largeur donc euh, border width aussi border euh, style donc yëpp ñu conserver ko donc ñu yokk ci par exemple ñu yokk ci donc fii voilà donc conservé nañ arrière plan bi couleur bi ak largeur ak hauteur donc mën nañ ci yokk par exemple border border style border style la ah bien ñu dem border width deux points donc foofu ñu def deux pixels par exemple deux pixels donc border style border style foofu ñu def fi par exemple euh, inset voilà donc border color ñu def yellow border color ñu def yellow border top left radius border top left radius voilà donc bi mooy bordure bi nekk euh, ci kaw à gauche maanaam coin arrondi ñu def ko par exemple cinq pixels cinq pixels même chose mën nañ adroit à mais def border bii ci kaw la woon léegi nag dañuy def ci suuf border bottom border bottom def right radius voilà bii aussi ñu def ko cinq pixels maanaam boobaa li muy tekki mooy maanaam bii border bi ci kaw à gauche ci kaw à gauche maanaam ñu defa koy arrondi bu cinq pixels ci suuf aussi à ñu def koñ arrondi bu 5 pixels donc bu ñu actualiser nga gis ne ci kaw à gauche mu ngi ni 5 ci kaw à cinq 5 pixels ko defee normal tax dina gën a leer au lieu de insert ñu def normal ñu def ñu def ko solide par exemple solide voilà donc gis ne fii am na coin arrondi parce que dañoo waxoon en haut gauche ak en bas droite voilà donc loolu lañ leen indiloon ci cours tey bi mu doon euh, wax kon ci lu am solo ci C